manifestant sa relation avec avec avec tey les prisons ñu bëri jàpp nañ ne détenus yi bëri nañ lool le président Sall refuse de dire euh, que détenu politique am na fi mais euh, ñiñ jàpp ñu bëri 300 400 500 comme disent les responsables de PASTEF seen parti la ñu bokk loolu bu dul acharnement lan la. Euh, détenu politique moom mënuma koo dégg ndax magum jëm bu génn. ñu ne dëkk bi dafa am charte wax nañ ko léegi. Mhm. nga xëy def nag pour même la sécurité. de Sénégalais euh, yoon dafa war a def liggéey donc détenu waxu détenu politique moom nañ ko defale mais année bi depuis le premier janvier le président il a gracié plus de 2000 personnes donc nekkul président bi nga xamante ne engorgement prison yi moo ko tax a jóg. ñooñu manifesté wu ñooñu mais léegi kon bu ñu wax waxu détenu politique lan mooy détenu politique. ñi nga xam ne dafa benn parti gën a manifesté wala wax ci ñu ñu ñooy def délit ah waaw ko def délit ñu jàpp la. am na ñu nekk ci parti boobu te defuñu délit te kenn jàpp leen voilà. il doit plus dire ce qu'il pense de la justice par exemple comme Bassirou Diomaye Faye. ci justice la wax la mu wax wax ko. man est-ce que am naa intérêt wax ko. ah ben voilà non donc, je veux ñun bu ñu denkee dëkk bi nga xamante ne euh, justice amu fi dina metti torop ci ñun nañ dem laaj dëkk yeneen dëkk noonu. je pense qu'on peut être dans l'opposition, mais pas fragiliser euh, les fondements même de la société. Et heureusement, oui. heureusement euh, quand même, euh, au niveau de la justice, la ñu war a def dañ koy def. parce que autrement on serait dans une jungle. te yaakaar naa ni euh, Sénégal lu Sénégal. Ah, mais la justice euh, doit faire son travail ñëpp ci d'accord mais. ñoom li ñuy wax mooy dafa féete boor benn côté rek lay lay lay lay dóoree en fait quand il sa de de de responsables ou de militants ou même de Sénégalais yoo xam ne euh, li muy wax euh, xëy na euh, ñoom la arrangé wul mais yéen la arrangé là par exemple quand quand quand quand le juge Keita ci affaire wu Prodac bi jox na président jox na Ousmane Sonko deux mois sur si am na ay kàddu yu yoo xam ne. doon na sax dénigré juge bi dem bay génne ay kiom yu yàgg di ko kii di ko kii mais ñi ko wax ñëpp amu ci kenn koo xam ne inquiété nañ la wala quelque chose du genre mais quand <laughs> yaa ngi may ko je ne comprends pas ce regard qu'est-ce que vous voulez dire. non non je vous écoute allez-y mais quand. Mm-hmm. non mais je, je disais juste par rapport ak. deux poids deux mesures bi nga xam ne. ñoom moom la ñu dénoncé quand quand quand quand ceux qui s'expriment quand ceux qui critiquent quand ceux qui menacent quand ceux qui voilà disent des choses yoo xam ne ci ñoom la jëm. Euh, dara du leen arrivé mais si c'est le contraire automatiquement la justice dafay dafay daal di jublu ci yëf yi. bi ngay wax sax yaa ngi sourire bi ngay wax yaa ngi sourire il faut il faut il faut qu'on arrête un peu il faut qu'on arrête un peu dans le sens de de de, de créer cet antagonisme là entre les Sénégalais. Mhm. ñi nekk boor bi ñi nekk boor bële. je pense que quand on parle de délit délit amul boor Sitor Ndour il vient d'être élargi am na appel Sitor il est du parti. Mhm. donc il faut nañu bàyyi caricature bi parce que euh, Sénégal ñun buñ ko bu ñu yàqee deru Sénégal suñu bopp suñu deru bopp la ñu yàq. Mm-hmm. parce que tey ku fi nekk di saaga wala tey ku fi nekk ne xaaral ma ma yàq deru Sénégal bëgg nga nekk président Sénégal te wax bal la am na actes yi nga xamante ne boo koy posé suba mot naa seetu daal.